13 ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu ndam ko dina bokk ci Guy Marius Sagna ak ñi nga xam ne moom la ñu leen jàppandooloon ku ci mel ni Assane Diouf Clédor Sène jamono yi nag ñu ca kanamu juge bu d'instruction ca tribunal bu Ndakaaru xam ngeen li leen di toppee bokk na ci association mal malfaiteur ak yeneen yu ñu xeetoo daañu ci dikkaat nu mu gën a yaatoo mbokk yi niki démb yemook ñaar fukki fan ak benn ci yoru mars xam ngeen ne. am fanweeri at bi nga xam ne jàmbaaru réew bu Sénégal te seen ak lim tolloon ci juróom-ñeent fukk ak ñett desoon ca fa nga xam ne moom moo di ca avion ba daan woon ca Arabie Saoudite fukk ak ñaar ci seen i ay njaboot ñooy sàkku nguur bu Sénégal daal di leen jox seen i ay ndàmpaay ndax itam bu ñu ko tegee ci li nga xam ne moom moo di yoon njaboot gu nekk war naa jot lu tollook téeméer ak benn ci ay million ci suñu ay koppar mbasmeek meeg tolluwaayam ci mim réew jàpp leen ne junni ak fukk ak juróom-benn doomi aadama jot nañoo dëddu ci li nga xam ne rek moom moo di euh, coronavirus niki démb itam euh, ñetti nit euh, ñoom ñoo daal di toftalu ci woowule lim xam ngeen yi la jamono dañuy aaye bépp dajaloo dajaloo wi nga xam ne nag njiit yu APR ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu Matam ki nga xam ne nag moom moo di Farba Ngom daal dina ci indi ay leeral moom maire bu ki nga xam ne moom moo di añam nag li mu xamle moom moo di du def lenn loo xamante ni dina mën a tax virus bi daal di law naka noonu itam muy xam ne rek ne lu tolloo ko juróomi junni ci ay euh, masque séddale woon na ko askan wa nga xam ne euh, ñoom ñoo fa euh, teewoon niki tey ji tam di altine yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars bokk na ci bés yi nga xam ne moom lañ jagleel wàllu ndox ci àdduna wërngal këpp fii ci réew bu Sénégal naam li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yi bari na ca diwaan bu Bambey foofee nag askan waa daje woon nañ ca Baba Garage li ñuy sàkku moom moo di ak waa Tek daal di wiccax loxoom ci li nga xam ne rek moom moo di yorin waa mbokk lu ni mel buñ ci noppee daañu ci toftal yéen kaay yi xëyee ni ki tey jii léegi-léegi ma dikk ñu faram fàcce salaamaaleykum mbokk yi ñu waat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko nañu ko euh, junjee woon Guy euh, Marius Sagna Assane Diouf seen biram su Souleye Diop Abass euh, Fall nag ñoom ñooñee ni ki tey ji ñu janoo ak juge d'instruction bi nag naka noonu itam xam ngeen ne daañu càmbar lépp lu ñeel li nga xam ne moom lañ leen di toppee bokk na ci association malfaiteur ak itam provocation au crime ak itam li nga xam ne moom moo di délit yebal nañu fa suñu ndaw du ñàkk suñu yeneen jotaayu euh, xibaar di ngeen am la nga xam ne rek euh, moom moo daal di euh, tukkee foofee nga xam ne la ñu leen doon àtte mbokk yi xam ngeen ne euh, ni ki démb la am fanweeri at ci ren nag ginnaaw jàmbaar réew bu euh, Sénégal nag ba ñu desee euh, fa nga xam ne moom moo di ca Arabie Saoudite ci roplaan ba nga xam ne daan woon na fa jàmbaar yooye tolloon ci juróom-ñeent fukk ak ñett ci ay jàmbaar fukk ak ñaar ci seen ay njaboot ca diwaan bu Sikicoor li ñuy sàkku moom moo di nguur bu Sénégal daal di leen di jébbal seen i ay ndàmpaay ndax itam bu ñu ko tegee ci yoon nag njaboot gu nekk war naa jot lu téeméer ak benn ci ay millions suñu ay koppar dañuy teewlu adjudant Landing Mané moom moo yoroon seeni i kàddu ci micro Boubacar Diassi yi ñun euh, bu ñu doon dem en Arabie Saoudite euh, en 90 on était 496 hommes bu ñu ñibbisee ñu bàyyi fa 93 ñu xam ni dem des nañu fa. lu ñu doon euh, jàmbat mooy di suñu suñu diggante ak état bi liggéey nañu liggéey bu nga xam ne moo ñu war def nañu suñu liggéey ba mu ba mu jeex tàkk te. li nga xam ni ndàmpaay bu nga xam ne arab yi jox nañu ñu ko jox ko état pour ñu jox ñu ko ba léegi ndàmpaay boobu jotuñu ko te ñu ñu ngi daw ci ginnaaw loolu depuis loolu ba léegi da ngay xalaat trente ans loolu promesse boobu ñu ngi daw ci ginnaaw ba léegi Abdou Diouf jaar na fii ci loxoom la affaire yi jaar dem na wax ci dara Abdoulaye Wade ñëw noonu ñu mu xam ne ni lii la ma ci war a liggéey en tout cas ñun yëguñu ko gisuñu dara. bokk na ci lu ma leen doon junju mbokk yi di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppaleen ne uh, junni ak fukk ak juróom-benn ci ay doomi aadama uh, ñoom ñoo ci uh, jot dëddu bi mu ñu ganisee ba suñu jon yàlla tey niki démb itam ñetti nit ñoom ñoo daal di toftalu ca woowule lim juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar ci ay cas positif la ñu am niki démb du ñu sori dañuy dem ca ministère de la santé fekki fa docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi. ci junni ak ñetti téeméer ak juróom ak juróom-ñett test def. juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fanweeri cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñaar ñu tuddee cas communautaire ñooñu mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wàll ci leen ko wàll. ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi malaat si ñi entré woon ak ñi ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ñu ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde fanweer ak ñetti malade ñoo nekk réanimation ñetti malaat ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars mi ñu nekk meneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu ba senegal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñeent ak juróom ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar wér nañ ci junni ak fukk ak juróom benn ñoo ñàkk seen bakkan mbokki euh, réseau des euh, vrais euh, artisans du Sénégal ñoom ñooy sàkku nag ñu daal di leen di jox la desoon ca ndàmpaay wa nga xam ne moom lañ leen war a jox jagle ko li nga xam ne rek moom moo di ndimbali ci jàngoro jàngoroy coronavirus ñu amaloon ab assemblée générale ca diwaan bu Kaolack bokk na ci li nga xam ne rek ñu ngi koy naqarlu ana lan moo tax joxuñu leen ci rek li nga xam ne moom moo di ndimbal li jëm ci wàllu DER ñu teewlu reportage bu Ibrahima Diamé ak Fally assemblée générale bu yambamay la woon waaye nag tax na ñu mën a càmbar jafe-jafe yi nga xamante ni moom la secteur bi di artisanat di jànkonteel donte nag ci seen benn waxtaan bi laata ñuy sori dañu daldi rek laaj somme bi nga xamante ni moom moo des ci fonds Covid 19 bi ñu jagleloon ñi di artistes yi. président de la république bi Covid bi amee dafa génne vingt cinq milliards ndax trente cinq milliards lañ jëkk a wax moom lañ jagleel artisans yi. ñu dem ba ci biir ne vingt cinq milliards lañ leen jox vingt cinq milliards yi ñu jox nag cinq milliards kese la ñu jotagum Revas national xool ay membre am ñi ci am sax bëriwul. ñu koy interpeller moom président de la république di ko wax ni ko artisan yi ci fonds Covid bi. vraiment ñu ngi koy xaar pour li nga xamante ni moom la jëflanteel ak artisan yi mu delloo leen ko. mbootaay bi daal di gëstu budget bi nga xam ne moom lañ jagleel artisanat waaye xeeb nañ ko lool rax ci dolli ñu ne financement yi nga xam ne moom la DER di joxe ñoom ñuy laaj li tax boolewuñ leen ci. président moom moo ñu ñun ñoo laaj ba mu jox ñu ñu ne dañu soxla un ministre plein mënul créer un ministre plein ba pare jox ko budget 4 milliards 4 milliards ndaw na ci secteur artisanal. loolu mënul dara beneen bi ci topp mooy vraiment ñun dañu sonn ndax DER amul benn organisation professionnelle boo xam ne DER financé na la. ba tey Revas parewul ci réclamation yi ndax ñu ngi ñaan ñu sampal leen banque bu ñuy duppee banque artisanale daal di leen jox seen wàllu itam ci 350 milliards yi nga xam ni njiitu réew mi moo ko annoncé lu yàggul dara seen site de recasement bi ñu prévoir te ñu war fa toxal artisan yi ñu dàqee seen atelier ci Ndakaaru loolu tamit ñu ne war nañ ko baral Ibrahima jàmbe xam nga ne nag ci jamonoy euh, mbas mi bokk na ci lu ñuy aaye lépp lu ñeel ab euh, dajaloo nag ca diwaan bu euh, maatam xam ngeen ne ni ki démb lañu fa amaloon mu di ab dajaloo nag di jiit yu APR ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom di maire bu añam indi na ci ay leeral li mu xamle moom moo di du def lenn loo xamante ni dina mën a tax virus bi mën a law ci askan wi naka noonu itam daal dinay joxe ay masque ci lu toll juróomi junni masque yoo xamante ni jébbaloon ko askan wi ngir rek ñu gën a mën a ñàkk seen bopp ñu teewlu ay kàddoom eh, ci micro Abi Faye ak Modou Diop. la pandémie elle est là mais pas empêché les gens de circuler tu vas même à Dakar yaakaar naa tey moom mooy euh, virus bi fa la fekkee baax fa la jur ay doom am ay set biir ndakaaru te réwul na am na ñoo xam ne dañuy dox ci mbedday ndakaaru yi du am masque am bagaay fustigé mooy koo xam ne ni kii sa xel dafa nekk ci moom rek masque dafay protéger xam na ne docteur yi loolu la ñu digle te appliquer ko dafa am solo trop man d'accord naa ci ndax xam naa ne mooy mooy lu ñuy aar aar suñuy njaboot aar suñuy mag loolu dafa am solo trop mais euh, il faut savoir que aussi nu waxu waxuñu la newuñu euh, maatam amul Covid bi si c'est limité on parle de un toog da nga toogaat ay fan doo déggaat mu am yàlla dafa dogal chaleur bi fi ne vous avez vu 43 degrés nit mën nga nekk chaleur 45 degrés sax nga am Covid mais yàlla dafa dogal comme ñun on est né euh, ci ci gox goo xam ne ne bi ñu nekkee liir ay xale ay nimaakinin yi weex xat lañ lañ lañ daan daa naan dafa bokk ci lu ñu jàppale ci Covid bi ba nga xam ne ne wax dëgg yàlla mën nga ko am ba wér sax doo ko sentir. mbokk yi maa ngi leen ko doon junj euh, sànq ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru euh, mars nag bés wi nga xam ne moom lañ jagleel wàllu ndox ci àdduna wërngël këpp mu doon ab prox ndoll woo xamante ni rédaction bu télévision euh, Futur Média def na ab gëstu donte jafe-jafe ndox nag ñu fii ci réew mi ba tey rawatina diwaan bu Bambey foofe nag askan waa li ñu bëgg moom moo di ak waa teg daal di wiccax ay yoxoom ci li nga xam ne rek moom moo di yorin wi ba tax askan wa daje woon fa nga xam ne rek moom moo di ca Baba Garage wax la nga xam ne moom moo leen metti Babacar Diouf Ndongo diggante njaareem ak jurbel siitu ndox toq fi askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci àll bi doole son doole wu yuuxu wollu ndax li nga xamante ni moom lañuy dund ci ñàkkam ndox ñu teggil leen ko fi. injustice boobu dafa wara a ci mim réew ak impunité parce mënuñu seetaan ak waateeg ñëw di jël ay pompe forage di ko sànq di ko yóbbu kenn xamul da koo jaay kenn xamul da koo wanteer kenn xamul fu mu yóbbu forage yi Aquatech di ñëw di dag ay tuyau te dara fekku ko ci Aquatech di ñëw di saboter ay table de distribution dara fekku ko ci Aquatech di ñëw non seulement jëflantewul woon ak li mu wax ak askan wi mais di bàyyi ay bor yoo xamante ni dem na sax ba juróom fukki million ak ñaar ci yenn localité yi ñu ne loolu nag dafa war a dak te état du Sénégal bu arbitré wul suñu diggante ak ak Aquatech lii nga xamante ni moom la ñu nemmeeku woon ci taax yi lu ko gën a garaaw mën naa xew ci dëkku kaw yi. mu di situation bu doy waar ndaxte ñàkkum ndox mi tax na lépp lu doon activité ci àll bi taxaw moo du Ndiaye moo di maire bu Baba Garage. Ajifor bi ñu yore ndox mi ñu ne amoon ci ndox moo ëpp léegi li ñu am ndox. wàllu qualité ndox mi aussi gis na ni amatul ndax fii ci Baba Garage yi nga xam xam naa ko de forage bi ci boppam war na am lu mat at ak lu topp loo xam ne kenn raxas ko. kenn du ko nettoyé leneen li nga xam ne aussi moo ëpp solo ca ñu waxoon nu ko daanaka li fa nekk ci périmètre maraîcher ëpp na fukki périmètre maraîcher yoo xam ne bu ci nekk fukki hectare ak nangam la yor daanaka moo yoroon gox bi baakuwaateeg ñëwee ba léegi ñi ko yoroon mënatunoo bay ndax gisatuñu bu ndox ci wàccal bés bi ñu jagleel ndox ci àdduna wërngal këpp askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci dëkku àll yi mu di dëkk boo xam ne nii ndox manqué na falool mu nekk ci département bu Bambey Bambey RFM Babacar Diouf Babacar Diouf bu télévision Futur Média cant ak ngërëm ñenn la mbokk yi toll nañ ah, ci fanweer ak juróom-ñaar ci ay village yoo xamante ni ñu nga ca Njayel ca région ah, bu Ndar Géej la nekk foofee nag askan wala ñuy sàkku moom moo di ñu daal di leen jox seen ñaar fukki junni hectares yi nga xam ne boobaak léegi nag ah, daal nañ koy jël jox ko ay société privée toll na ci juróom-ñeenti at yoo xamante ni mu ne suñoo jëfandikoo li nga xam ne moom moo di seen ak suuf Ibrahim Seck demoon na ca woowule barab li muy sàkko moom moo di njiit bu réew euh, bu euh, Sénégal mu ñëwaat ci boobule dogal waaye tam daal def ab njàpp ndalam jëbbal ko askan woowee nga xam ne ñoom ñoo fay euh, yeewoo ñu teewlu reportage bu Serigne Diop ak Habib Seck. fanweer ak ñaari village lañ nekk ci njayel bi ñoom nag dañu mer ba futtu ñaari fukki junni hectares yoo xamante ni seen huile lañ ko joxoon ñu ni ginnaaw gi nag yeneen ni ay bailleur lañ ko jox loolu nag lañu nii na dakk ci na ma gën a gaaw ndaxte ñoom dañ ko soxla kon genn nañu bañ nañ bañ nañ loolu du kenn dootu ko defati jaay kenn du ko jaayati nañu jox suñu suuf ci la ñuy dund duñu ko joxee ñoom defuñu dara ba pare ñun ñu dem di luyi ci duñu ko def lii daay lu nekk ñun ñëpp dañuy jënd suñu yëre yu weex fekke dañu nuy rey rek ñu suul suulaa ci seen ndaje bii sax jàpp nañu ni liggéey bi nga xamante ne waroon nañu ko def ci suuf si mënatuñ ko tax nag ñu ñaan nguur gi mu delloo leen ñaar fukki junni hectares yi nga xamante ni dañ ko jox waa seen huile suuf bi moom joxe ko nekkul suñu xel tey nekkul suñu xel ëllëg ndax amuñu ci sens suñu dund duñ ko joxe dañu wax nañu joxe suñu dund fas ñu ko yéene si àdduna ci kàddu Ibrahima sekk bu Forum Civil lii dafa war a dakk ci réew mi ndaxte jël suufu jàmbur boobu ba léegi bayoo ko ñoom ñu taxaw te amuñu fu ñu bàyyee dafa metti nag daan na ñaan nguur gi ca ni mu gënee gaaw ñu delloo leen suuf si. suuf si jox ko ñeneen ñoo xam ne ñu ngi am ay société ci paradis fiscaux yi ñooñu jëlaat suuf si ñu ne ñu jël nañ ko jox ko Frank Timis loolu nekk na loo xam ne rafetul jaaduwul ci deru Sénégal jaaduwul ci deru président de la République moom mi nga xam ne moom moo jëloon décret bi. attribué suuf soosu italien yi ñu ngi koy waxaat ne ko sa doom yi nekk fii nii dans le Ndiayel bëgg nañ récupérer seen suuf parce que ci lañuy dund. jamono ji nag fanweeri juróom-ñaari village yi nga xamante ni ñu ngi ci Ndiayel dañu mer ba futtu taxaw nag daal di takku nee nañu nguur gi ci na mu gën a gaaw ñaar fukki junni hectares yi nan leen ko delloo ndaxte nag si la yaakaar di ci bay ak di ci sàmm. mbokk yi Pout xàmmee nañ ko ci ab meññanteef lu ci mel ni fruits yi ak itam légumes yi waaye lu nu mel mu mel ni rek mu ngay bëgg euh, naxsaay ba taxitam agent agence sénégalaise bu reforestation nag ak askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Pout daal ni ñuy jëmbat ay garab lu ñu bëgg moom moo di xar kanam gawoon euh, daal di euh, dellu si Cheikh Anta Diop Seylatir ci reportage. puut li fi daan génn ci meññeef ay fruits mandarine orange ak lu nu mel bari na lool waaye ñu gis na jamono yi de mi ngi dellu ginnaaw puut ni mu meloon ci fruit melatu ko loolee tax directeur général bu agence sénégalaise reforestation ak grande muraille verte dikkoon fii ci diwaanu puut ngir ñu mën fee jëmbataat ay garabu meññeef yooyu askan wi di ci mën a jariñoo ñu bañ di jéggaani ji ay fruits. ni ñu ko defee euh, Tivaouane fan yële paas rek. ñu ngi fii Pout ñu ngi ci suñu liggéey bi nga xam ne dañu bëgg Sénégal naat naat am fépp ay garab yi nga xam ni garab yi am njariñ la pour askan bi garab buy jox liggéey tamit jeunesse bi parce que garab yi boo ko defaree da nga koy jaay wala boo boo mën nga ci jaay lu bëri waa euh, nooto guy jama groupement féminin yi fa nekk euh, ñoom dinañ produire presque cinq cent mille garab at bu nekk donc ñu bëgg a pour tamit jeunesse bi engagé wu Euh, groupement de femmes yi engagé wu pour ñu defar fi tamit ay garab yu ñuy jaay fi ak ñaar ñetti at bu ñu continuer rek nit ki dinañu gisal seen bopp ni am na changement garab a ngi naat jeunesse yi dinañu gis ni defar garab dina indi koom-koom liggéey la emploi vert la ak groupement femmes yi dinañ am fruit yu ñu transformé. chef brigade eaux et forêts bu Kër Moussa joxoñ baaraam ñi nga xamante ne dañuy dagg tool yi di ko borne di ko def ay kër. yeneen ah da ngay gis ay koo xam ne am na verge mais dafay obligé dafay am euh, ci pour mu ñu dindi garab yi nit ñi habité ko boobu aussi effet la. fexe nag ba ñu dundalaat garab yi. loole la maire dëkk bi di Moustapha Sarr di sàkku ci askanu Pout ngir Pout nekk lu ñuy wax ville verte. jërëjëf euh, Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel la mbokk yi jàppale ne nag euh, jamono yi nga xam ne moom moo di sareet yi wala bokk wëtiir yi daañu amal li nga xam ne rek euh, moom moo di visite technique lu ni mel itam di ab arrêté ministériel fu ci mel ni diwaan bu tëngee ci foofee xam ngeen ne li nga xam ne moom moo di wëtiir yi bari nañ fa lool ñoom ci seen bopp dawalkat ya ñu rafet lu bu baax baax lu ni mel Ousseynou caam ak Ahmadou Bamba sàmb lii di charrette yeeg voiture yi war nañoo am visite technique ni ko woto amee fii ci diwaanu Tëngéej xam ne lii di transport hippomobile daf fi am solo lool ñi di yëngu ci secteur bu nu mel rafetlu nañu ko. kayit yooyu ñun dañ ci dañ ko sax yàkkamti dañ ko sax yàkkamti pour am ko waaw parce que tamit vraiment euh, diggante fas wi yaa ngi dégg yenn saa yi mu dem ba yàgg mu am problème pont jam ko yaa ngi dégg wala mu fokk solo lu daanu yooyu yëpp. dama war am kayit parce que su boobaa ñu jógee foofu kayit yooyu moo ñuy permettre nag ñu am fu ñu dem pour ñu fajal ñu suñu bas. mu doon ay dawalkatu sareet ak ay dawalkatu watiir yu bëgg nag autorité yi ñu woyofal dogal bu ni mel. visite technique bi man dégg naa ñu ko wax ci rajo yi mais bu ñu tegul sart yu diis daal moom baax na moom xaw ma nag gouvernement bi ñoo tegul daal sart yu diis bu ñu dimbali woon daal oyofal nu ko moo gën moom bu dee mënul ñàkk moom bu ñu ko oyofaloon moo gën moom parce que watiir amul ginnaaw waaw. te koo ci gis koo ci gis bu nekk buy liggéey ah li mu ci li mu yaakaar ci wàllu bariwut dañu ci dañu ci góorgóorlu rek. ci ñuy jëfandikoo nag waaye dem ak dikk yooyu ñoom nag rafetlu nañ bu baax baax dogal bu nu mel jàpp nañ ne daal lii di wëtir yeeg sareet yi war nañoo am visite technique. ndax du fait que dem nañu ba oto yi am nañu visite technique c'est normal tamit borom wëtir yi tamit war ko mën a am ndax sérieusement ñoom dañ fi ñëw. pour daan si seen doole te yaakaaruñu lu seen liggéey bi kon ñoom war nañoo am visite technique si yoon war nañ ci mën a am. ngir nag tas arrêté bu nu mel lii di état bëgg nag jàppale ko ONG bii di Brooke mu doon nag organisation boo xam ne bii day yëngu nag ci nekk nu li nga xam ne lii moom mooy fas yi mbaam yi ak xeetu mala yooyu nga xam ne nii dañuy yëngu ci wàllu transport ci dëkk yi nga xam ne nii dañu nekk en voie de développement. xibaaru biti réew mbokki diwaan bu Niger foofe nag lu tollook juróom benn fukk ci ay civil nag ñoom ñoo daal di faatu ci aw cong boo xamante ni amoon na fa niki démb ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars nag ca bët gànnaar bu réew ma jege fa nga xam ne moom moo di frontière malienne bi nag mu nekk ñaareelu cong boo xamante ni cong wan xam ne am na ci fukki fan yoo juróom benn fan ngeen baal ma ci aw cong boo xamante njëkkoon na fa am ba lu tollook juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken ginnaaw Niger nag mbokki jàppale ne opposant congolais bi nag di Guy Brice Brice Parfait Kolela nag daal di nay euh, faatu ginnaaw ba ñu ko doon yóbbu ca diwaan bu France ngir rek mu daal di fay euh, faju ca avion bi sax la ñàkkee euh, bakkanam daañu leen digtal ay kàdduk Lamine Ba nag xam ngeen ne conseiller politique am la woon nag li mu xamle moom moo di diwaan bu Congo daal di ñu ñàkk ab kàngam waaye tam tundu Afrique dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. suma xarit woon suma xaritu bopp la woon ndax man sax la jëloon comme consultant conseiller politique ci élection 2016 yi ñu ànd war àddina bi yëpp man ak moom dem Bruxelles dem Zurich dem Berlin Allemagne ñu taxawoo ko bu baax ba élection yooyu sax moom moo génnoon deuxième ba ñu amoon yaakaar ne ren moom xañ na euh, jot na pour mu mën a yàlla def mu falu li ci metti nag mooy ci digg campagne bi démb bi mu defee dernier meeting de clôture am àjjuma ci la ko Covid yàlla def ñu koy évacuer mu jëm France mu gën àddina góor doom ju jigéen ji moo ma woo ci fajar gi moo jëkkëram ne ma sa xarit dem na mu nekk nag bis bu tiis bu rëy rëy rëy ci man ndax parfait suma genn wàll la woon suma xarit la woon ñu jàpp jàppalante maa ngi moom ci wàllu yi bari nag te ku bëggoon Sénégal la aussi daan wax bis bu nekkee président Congo dootuñu am problème mu euh, pétrole Sénégal fekk booba coupure ñu toog ci fii Dakar courant coupé mu bis boo nekkee président Congo courant dootul coupé Sénégal ndax bëggum bëggoon Sénégal kooku daal tiis bu métti la ñàkk gu rëy la ndax moom baayam noonu la meloon nekkoon xeexkat jàmbaar di xeex pour Congo xeex pour Afrique Euh, ca Congo Brazzaville foofee nag xam ngeen ne ñu ngi doon amal palub njonganteeg njiitum réew mi euh, dikki ni ki démb yem ak ñaar fukki fan ak euh, benn ci weeru mars wi li nga xam ne moom la ñu nekk ginnaaw fanweeri at ak juróom-benn yoo xamante ni nag mu nga ko def ca bopp réew ma moom Denis Sassou Nguesso nag jëlaat na lu ni mel ginnaaw ab jano woo xamante ni nag bokkoon ci rek juróom-benni adversaire ñoo xamante ni sampoon nañ seen i ndënd ngir amal palub njonganteeg njiitum réew ma euh, foofee nga xam ne moom moo di ca kongo euh, Brazzaville mbokk yi egsi nañ euh, ci weneen a ponk ci yile jotaayu xibaar di li ci yéenekaay yi jërë ngeen jëf Guy Marius Sagna ak compagnie mu di ñoom Assane Diouf ak Clédor tey jii ca la janoo ak doyen DG Samba Sall l'observateur moo ko bind ba wax ñu waxtu wan la war a doon 10 heures ci yoor yoor gi yéenekaay bi nee nañu ca lay door altine ñaar fukki fan ak ñaar ak talaata ñaar fukki fan ak ci weeru février ca la leen téye woon mandat dépôt woon leen ndax tuumay tuur bale ordre public bi ak i nasi pexe yoo xam ne mën naa joo réewum Sénégal ci fitna journal bi nañu seeni avocat leen sàkkul nag ab liberté provisoire doyen des juges a jàmbar Ousmane Sonko seen audition tey jii ci lay tàmbali mu di Guy Marius Sagna di Assane Diouf di Clédor Sène Birame Souleye Diop ak Abass Fall lii quotidien nañu ñëpp tey jii ci la ñuy gisee ak doyen des juges waaye jege nañu lool ab liberté provisoire enquête dina kay moom it xëyi xibaar bi mu di ñoom Guy Marius Sagna daanaka léegi tey ñu génn ci kaso bi Ousmane Sonko moom la l'Observateur xëy génne ci xëtamu njëkk boole ko ki di jàngat aw doxalinam yéene kay bi nañu moom Ousmane ca teg nag mu di dem di seeti ay politiciens yu fi nekkoon loolee mu indi jaaxle jaaxal ñu bari ci nit ku ne dafa bëgg a soppi système bi système démocratique bi ci réew mi Le Quotidien bind na ne Macky ak ñi mu àndal ñu di waa Benno Bokk Yaakaar bëgguñu kenn di ci sensé lu toll ne tarfatal ay ni journal bi xamal ñu ne lu jege ñaari semaine ginnaaw li fi xewoon mu di fitna ju amoon ci réew mi ba ay bakkan rot ci keroog samedi leader yu Benno Bokk Yaakaar yi daje nañu ci njiital seen njiit mu di président Macky Sall la ñu tënke ca ndaje ba moo di booloo taxaw doon jënn jëmm ngir défendre république bi défendre askan wi Moussa Tine jiital alliance démocratique penco bokkit ci coalition taxawu di xamle ci xët mu njëkk Les Échos fi woon du fi amaat ku ñu dóor danañu fayu duñu toogati mukk di faste suñuy loxo ci jamono jooje réew mi quotidien bind na fële ca Ndar jeunes ya demoon ca maire ba doon ko caxat-caxate saax-saaxee ko maire bu Ndar di Mansour Faye nee baal na ñëpp toppewul kenn dara ndax topp fitna dafa yokk fitna la tribune ñu teg na ci joxe xalaatam defi proposition ci nan la ñuy def ba wutal jeunes ci réew mi emploi mu di am xëy ak ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk yi président Macky Sall fas yéene dugal ci wàllu woowee ci weneen wàll journal Les Échos mi ngi ñuy wax ne wax ji ñaar la nañu waa APR waneeti nañu seen bopp ci meeting bu ñu doon def démb ci Pikine yëf ya dafa far sax mujjoon jaxaso ba amoon fa ay responsable yi APR ak yu Benno Bokk Yaakaar yu ñu fa doon yuuxoo ba dañu leen a mujj rocc rawale leen la tribune moo far mujj lakk na fa ay pompe à génn na fa ay xeer ak i siis lu nekk gaa yi sànnante nañu ko fa ba am ñetti nit yu ca jëlee gaañu gaañu ba mujjee l'hôpital lépp nag doonoon ci teewaayu ministre Abdou Karim Sall Awa Niang Pape Gorgui Ndong Daouda Ndiaye ak maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo mi nga xam ne moom bi fitna ji tàmbalee jolli ca la ko rocc rawale ko la mel ne ku naan ñu ñoom ñi ci mois présidentielle gi bu ñu xamoon li leen di yoot danañu a ñu defar cadre d'unité d'action noonee la ñu ko bëgg a tuddee li ñuy wut moo di doole ju ñu mën jàmmaarloo ak Macky Sall ak nguuram moom président Macky l'observateur nee nañu bijoutier yi ci réew mi ñoo ngi koy fàttali seen bopp ubbil yéenekaay bi association nationale des bijoutiers du Sénégal ñoo doon daje ci week bi fa la waxee coono bi ñuy dund ci fisc bi ak ni mu yàqee seenub liggéey wax nañu it ci li président Macky waxoon keroog ci discours à mi am lu ñu mën di liggéeyee Ibrahima Niang mi jiite association gi leen jaboote ñoom bijoutier Sénégal yi ne ñu ubbi président Macky Sall waxee loole ak léegi ñoom dara lañu ci gisagul. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen ak Mamadou baal sa téléphone nga jàkkaarloo ak askan wi wax leen lan moo gën a fës tey euh, ci li ci internet bi ginnaaw bu mu la nuyoo. Euh, téléphone yi lañuy ñuy liggéey nag Cheikh maa ngi lay ziar di nuyu euh, téléspectateurs yeeg internautes yi. doon mm-hmm. commencé di gëstuwaat di xool bu baax laka la question yeeg. internet yi nga xam ne loolu la ñuy baaxoo de di ñu posé xam nga euh, li xew ci biir internet bi mooy émission boo xam ne dafa am. Mhm. dafay avant la pendant ak après. moo xoolul sa portable sax moo la xoolal <laughs> ndax euh, internet yi euh, commencé guñu commentaire yi foog naa ne avant laata émission bi la ñuy commencé li nga xam ne moom moo di commentaire yi waaye itam di joxe li nga xam ne moom moo di seen xalaat. ci li ci mhm. internet bi. voilà noonu lay demee xam naa ni weekend bi moom li ci gën a fës dinañ ñëw ci weekend bi am nga ajjuma ji surtout. Mhm. am na benn panne bu amoon. seetlu nga ko seetlu woon nga ko euh, Instagram ak yi ñu xeetoo réseaux sociaux waaw waaw ba ñu bari di joytu ku nekk naan moom moo am jafe-jafe wala panne la ci kanam mm-hmm. dinañ ci ñëw expliquer leen mm-hmm. ndax c'est panne fi nii moom bu amee ci yi mm-hmm. ko yëg mais mais accro bi nga xam ne euh, euh, askan wi donc mënuñu toog ay minutes yoo xamante ni xooluñu seen téléphone foog naa ne itam day jaadu ci li nga xam ne moom moo di importance réseaux sociaux yi daal di koy wax ngir askan wi mën koo xam ndax itam loo xam xamante ni itam du ma day tax nga perdre sa temps ndax am na ñoo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo di ci liggéey di ci def loo xamante ni itam mën na jëmale li nga xam ne moom moo di seen dund kanam. laaj bu am solo nga nga samp noonu. loolu mhm. moo tax tey jii am nañu ku ñu dalal koo xam ne xam-xamam màcc na ci nekk formatrice. du ma leen wax bi. ñëpp mhm. ràññee nañ ko ci eh, journaliste bi mu doon mais surtout. Mhm. Eh, xam-xamam ni mu màccee ci xarala yu yees yi maanaam réseaux sociaux yi ni koy jëfandikoo. Mhm. ci nu waa nu lu baax loo xamante ne ndaw ñi war na ci gën a mën a jàng. am na ñu ci liggéey am na ñu ci eh, gagné xaalis bu bari. ci réseaux sociaux yi waaye tamit am na ñi nga xam ñu bare xamul nu ñu ngi koy utiliser wala ban ñu ngi ciy def ay naka sudul noonu ci kanam dinañ ci ñëw gën ko expliquer. jërëjëf Mamadou du ma jug ci di la jox jaajëf kontaan naa jaajëf jaajëf mbokk yi ñun itam fi la ñuy jaar daal di yëkkati euh, euh, jotaay wi dig daje ngoon incha allah ak rédaction euh, bu télévision Futur Média lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf kenn dal ak jàmm